identifié. Fofana. Mm. waaw une minute rek. mon mm-hmm. mm. nuyu leen ziar leen. Mm-hmm. baalu ñëpp àq. Mm-hmm. baalu Sénégal yëpp àq. baalu Sénégal ak, bal Sénégal yëpp àq. semaine bii wala ci weekend bii. sama tour fees na lool. ci lu juróom-ñeenti tur seq mais jàppewu ma ko nattu dama koy sant yàlla ndax man am naa tur am tur ndey ak bàyyi sama doom moom Mamadou Moustapha Diop la tur comme ni mu tuddee Mamadou Mansour Diop am na tur am na tur yaay ma àndaloon defi njombe am na tur ndey am na tur bàyyi moom am na tur ki dee ci seen loxo amna tour amna tour ndey amna tour ça fait 9 personnes. Mhm. Mhm. waaye yalla dogal ni ñepp ben tour la tudd le fils de Mansour. Mhm. man wu dama ko jappé ak sante yalla parce que population bu Sénégal bu amé 17 millions personnes. 17 millions. nga ci ben village bu touti yalla di la dimbali ba la Sénégal ñepp xam la. ba bu kenn défé sax buñ identifier identifier ko à ton nom. defe naa ni liggéeyaloo yàlla wala nga gën waa Sénégal walla nga lebal leen li tax fu ñu la tuddee ñëpp xam la. bu la yàlla defalee sutura defal la teraanga nga sos kër sos njaboot yàlla may la fukki doom ci biir doom yooyu mu la may ñëpp nekk ci sa waaw ku nekk di jàng ngay def ci moom yar bi sa baay defoon ci moom. yàlla génne ci kenn ku la tër lu mat fukki at nga joytu ko képp koo am kenn kooku la tër bu defee njombeem bu fekke dellu woo ko ci nattu yi yalla di natto ab jaamam. Mm. ma xamni do julit do doo gor. Mm-hmm. Mm-hmm. assumé toutes mes responsabilités que xale bi def li bonne et mon fils aîné waye mom rek mo nekkul ci samay doom yi may contrôler comme nima sama papa jangale won yar ma def ci mom yar bobu malheureusement damay nangu ne sama dom la mais ma boole ko ci nattu yi nga xamni mom moom la ma yàlla nattoo. Mm. ba mu ñimee def man bayam lu mu ñëwut a def. Bon, muy dem foo xam ne rakam du fa dem amul kenn ku fay dem samay dom mm. kon damay japp ni natou la mu yalla tek mo ma continuer nag di demander la justice que chacun assume ses responsabilités il a 22 ans que justice fait son travail mo mm. continuer aussi di prôner toujours que faw ni delo si wat Sénégal peine de mort mm. man gënuma kenn sama dom gënul kenn bay def naka su dul noonu te dara do ko ci fekk maa ngi de justice def liggéeyam maa ngi demandé ñu soit peine de mort mais maa ngi demandé itam ni nañu ma ma bal ñëpp itam bal naa est mm. ce que tax ma na na ñëpp mooy Mansour day day watch wàcc dem këram ouf uuf ay n'est que dans de très bonnes conditions. Mm. alhamdulilah. Mm. sant yàlla waaye nag du ju fàqee coach ci man itam. man may bàyyam. waaye dom joo xam ni nekkul ak yow te def nga lépp pour moom. Mm-hmm. loolu nga man mm-hmm. moom bu optee leneen nag ñu askanale la ko. nangu naa. merewu ma kenn nag. lu ma ci waay tudde merewu ma kenn. Mm-hmm. waaye dama ko sant yàlla ndax gënuma waa senegaal lu tax fuñ ma tudde ñëpp xam ma. liggéeyalu ma waa Sénégal liggéeyalu ma yàlla lu tax fu ma ñëpp xamee. su ma amee benn doom bu mel noonu dama koy dugal ci. dàmbak nattu yàlla ndax innama amwalukum wa awladukum fitna man nangu ko te sante ko yalla bu baax te demander justice def liggeyam demander itam ñu dellu ci peine de mort parce que nit di fo du fowee jamais ak bakkanu jàng ngeen je pense que jarul sax jarul sax commentaire en hein, foofu parce que alaaji li mu wax tay njëkkee nako ko wax na ko wax na avant fi ci tës bi wax na ko euh, chimère chimère loolu buñ ko bu mënoon am rek yàggul toog na fii moom alaaji wallaahi ne jël na doomam yóbbu gendarmerie tës bi na toog di ko wax mhm. na ko wala waxu ko amoon loolu rek nga may ñu ko rek ay weer ginnaaw la je pense yàgg na ko wax may ñu ko rek na ko jàmbat yàlla mi ñu tim xam na loolu jàmbatee na ko fu ne lii moo ci suñu commentaire nekk jàmbatee na ko fu ne waaw te loolu moom bu la ko ñëpp seedalee moom daanaka yow moom sa responsabilité dégagé nga ko. Hmm. dégagé nga ko. xale boo ko juree. ajali ko màkk sax. ngir mu baax. alaaji ajal na makk màkk 2015 doomam pour mu baax. alaaji day toog fii ne ma sa rakk ja génnee naa ko. ma ne ko lu mu def mënuma lii la def maa jël sama oto yóbbu ko gendarmerie ban ma ko karaamee. alaaji moo njëkk nekk victime doom ji. ci mhm. leneen ak leneen ak leneen. loo xam ne mënuñu ko wax. mais man man dafa am lu. donc jarul sax ñu ci ñu ñu dama ko fekkee pour wan la na rek. moom jóoba juba jaanam wàcc na. ànd nañ fii ci otoom ñu taxaw fii di waxtaan ci bopp koñ. Mhm. ci bopp koñ. ma ne ko waa sa waay dama boobu mu ne ma déedéet parce que dafa am oto bu ma doon jënd pour Moustapha. laaj ma oto bi lan la. Dodge mi ngi noonu yow gis nga oto bi. fekk naa lépp. bu baax ba muy mottali waa xaalis bi ñun ñaar ñoo ko. loolu kenn duma ko nettali man maa ko. utal ko bergerie d'une dizaine de millions. dama ne. mais ku bëgg bon nag munoo ci dara. dama ne. nattu yàlla la rek cinq millions six millions pour jox ko nit. muy def la navette entre biir mbuur ak suma nag yooyu ci teg. wallaay pour am mu jàpp rek mën a bàyyi yenn kooku. alaaji gàcce ngalaama waxuñu nag yeneen waxu ñu nak yeneen ni mais gàcce ngalaama tay yàlla waxe yalla may lo xolu muñ rek te ñëpp mm. xam nañ ne yag nañ ko wax ci tës bi de xale yi wallahi ñoy natu seen waa li nga xam da ngay def lo mun nga wara a def rek na def gàcce ngalaama ku la ku fele déglu la alaaji waxon fan ye ci doom ji tout le monde lo da koy def jàppale wo sa doom ba jàppale wo ko de baxna ba baxna jël ko yóbbu ko ñu gars yi redressé la ko moo gën koy bàyyi ci kër gi. jooyloo sa yaay rek. baax na. Ah, yàlla musal ci jooyloo suñuy ndey. dafa muy mujje. Hmm. baax na. mu la doon jëlee waaye lu ko desee la. noonu lay. dañu bàyyi nëpp nëppal doom. Hmm. Hmm. baax na. bàyyi nëpp nëppal doom mooy dëgg de alaaji. donc bu tooñee da nga koy teg ci yoon. mooy mhm. yoon de. donc du fooy way juróom. Mhm. wallaahi dëgg nga wax. wallaahi dëgg nga wax laaj. man de bii bii ci mujj bii bii maam bii. Mhm. sama doom yàq na oto jàmbur ba nga bëgg a daw. gaañu ci dem hôpital ànd ak ay copains ñu koy nëpp nëppali jéem a jaay affaire affaire yu guerrier. ñu ngi ko déggee sama kër. damaa taal sama oto ñu fekk hôpital ba mu nekk. booy bëgg ko génn rawale ko man leen aw aw leen sama kooku noppi. taxaw fa woo ki mu yàq otoom woo gendarmerie ñu jël ko jël ko yóbbu. Hmm? billaahi wal azim bii avant may ñëw fii avant may ñibbisi ñëw jël ko yóbbu gendarmerie mën leen na fay ki mu yàq alalam. Hmm. parce que fekkoon da ko yàq toog ñu négocier ko mais da koo yàq bëgg a daw ba noppi jëli ak gangam. ay copains ñu ko jéem a protéger ba ni booy booy gange xoolal ku ni ma père ma yow dugg ci sa ba kenn ni ma père. léeg dem boole ko. ko bougé woo ba kilifa da ngay doon responsable. léegi anamu. mbala ah ci loxo gendarme laa ko bàyyi di ko ñu gis. daa su ma dawal moto. moto su bëgg oto jàmm. bu bëggoon toog ma fekk ko fa dinaa négocier mbaa ma fayal ko. mais da koo teg diil ànd ak ay copain daw koo tàgg da koo mbëkk yàq alalu waa ji te gayen bi daw daw dem non da koy wan ne la nii lañu yare jéem bien chati bien hôpitaux yi lay doxalee xam ci lu bari ci benn fekk fekk doo yar da ngay yar fekk ay moto ci wéru hôpital ma ne fi li cëpp wàcc ni paa bu sadik baa ngi ñu ko sadik ñu dem ci ci Kaffrine la ñuy jëm laata ñuy dem Kaffrine ah, euh, Djibril Dramé dafa réeral permis de conduire mi ngi fii ci kër gi Djibril sa permis de conduire nga juddoo ñagas mi ñagis. Euh, ñagis mooy dëkk kër ga de ministre ba nu mu tudd. Mhm. ministre microfinance ndaw sa. Euh, Victorine Victorine Ndeye Amdi Moustapha Ndiaye. Mhm.